alors ni ma ko waxee euh, beneen débat gannaaw débat wu euh, audience bi di nga ci ñew moy euh, sen candidat kan ngeen di tànn kan la Ousmane Sonko wara a kan mo ci gëna jekk on parle de profil bu gëna baax ñeneen gis né le choix logique reste Jomay Fay mi nga xamné mom moy candidat légitime bu Pastef naturellement aussi bu ñi jappalé Ousmane Sonko yépp alors fofu tamit yéen lan moy sen position ak rumeur de divergence ñuy dégg entre Cheikh Tidiane Diaye ak Habib ak ñi bëgg ñu tànn Diomaye lan moo ci euh, dëgg vraiment. waaw euh, jërëjëf euh, kontaan naa trop ci li nga ma posé question bi waaye xam naa ne li may tontu dina la jaaxal te dina jaaxal say internautes yi rumeur bu ñuy wax ni ak xëccoo bu am suñu diggante yàlla xam na ne man ci mbedd mi laa ko déggee yàlla xam na ne ci mbedd mi laa ko déggee xam nga. Euh, d'abord damay souligner benn affaire guléet la ñu def réunion mu senn mu fuité c'est la première fois. kon seen am na. depuis non depuis plus de quatre mois. d'accord ñoo ngi def ay réunion waaye mosuñu génn ñu ne lii am na seen réunion wala amul seen réunion te c'est la première fois nit ñi wax ci suñu réunion wax joo xam ne yàlla xam na ne man mi nga xam ne maa jiite réunion bi. maa convoqué réunion bi maa jiite réunion bi wax jooju musta am musta am xam nga euh, ñun lakos bu ñuy génn ñi ëpp si ñun bu ñuy génn yeewi askan wi bu ñu wax sax ne wax na dañoo génn yeewi askan wi mais bu ñu jógee yeewi askan wi bàyyi fa ay yeneen candidat ñu ànd ak beneen candidat boo xam ne Ousmane Sonko la tudd ñun dañoo da defoon suñu tànneef ba pare ñun ñëpp dañoo àndoon ne du ñu nekk ay candidat élection présidentielle Ousmane Sonko bi nga xam ne newoon na moom mooy candidat ci ay biir nawlem ñun ñu jàpp ne Ousmane Sonko mooy suñu candidat mooy suñu tànneef beneen tànneef amu fa ba fu may wax ak yéen nii benn candidat bu ñu am mooy Ousmane Sonko ñeneen ñi nga xam ne ñoo ngi bokk la ko te man ma mënoon bokk ci nga xam ne tey jii valide nañ sama candidature yàlla xam na ne du sama coobare bopp. Ousmane Sonko moo ma ne ni may wutee fiche de parrainage bëgg naa yow aussi bu bés ba jotee nga dem wuti fiche de parrainage donc bu boobaa man bu ma nekkoon candidat candidat lakos donc lakos amul droit tànn ci suñu biir ñun parce que man bu may dem jëli sama fiche de parrainage tàgguwuma leen ñi nga xam ne ñi nga ñoom nga tudd bi dem jëli fiche de parrainage ma ndax man ci wala ànduma ci gannaaw man Muslimat ma laaj sama xalaat te wax ma wax leen ndax ànd naa ci wala ànduma ci awma droit man ne damay tànn seen biir ku ko ñu ci ku ku ñu eh, ku ñu waxal loolu yàlla xam nañ daf ñuy tooñ hmm. musuñoo musuñoo tànn parce que amuñu droit tànn amuñu droit tànn kon yéen waxu ne jomaay moo gën a jekk ci yenu projet bi musuñu ko wax musuñu ko wax lakos musu ko wax parce que lakos candidat mooy moo ngi tudd Ousmane Sonko léegi bu Ousmane Sonko bokkul amul kenn koo xam ne beneen tànneef dina la engagé ñu nekk ay candidat bu ñu tànnee seen biir ñoom loolu waru leen engagé bu leen neexee ñu ànd ci bu leen neexul duñ ci ànd mais bu ñu sosal ñun mosuñoo wax ne diw mooy suñu candidat jusqu'à jusqu'au moment où maa ngi wax ak yéen Ousmane Sonko mooy suñu candidat. mais mais Ousmane Sonko man man man sama wàllu bopp mun naa waxal sama bopp xam naa ne bu Ousmane Sonko nekkul candidat keneen ku mu joxoñ mun naa ànd damay ànd ak eh, joxoñ bu mu def waaye duma ci yóbbaale kenn donc débat boobu mënul am suñu biir parce que en réalité ku mu neex tey jii bu Ousmane ko waxee nga ànd ci bu Ousmane Sonko wax eh, boo ci bu la neexee également doo ci ànd dégg nga donc bi ñuy wax réunion bu ñuy wax noonu yàlla xam na ne benn sole bu ñuy tuunaam tuumaal noonu fekkewul réunion bi Cheikh Tidiane Dièye bu ñuy wax noonu ne dafa lank ba tëdd ci suuf fekkewul réunion bi kon kan moo am intérêt wax lu mel noonu kan kan moo am intérêt pour wax lu mel noonu te buñ koy def kër Habib Sy lañ ko defoon Habib Sy candidat la ni ñoom est-ce que wax nañ lan la lan moo ci ci nekkoon taxawaay Habib Sy dafa ànd ak Diomaye réunion bi kër Habib Sy réunion bi kër Habib lañ ko defoon te waxtaan bi jëmul sax ci ban candidat la ñuy tànn lu ngeen doon waxtaanee li ñu doon waxtaane mooy samedi la conseil constitutionnel génnee décision man fi ma toog sama kër ma xool décision bi am loo xam ne jiixi jaaxal ma jox ma woote réunion ne nañu ñëw waxtaane décision conseil constitutionnel bi jëm ci Ousmane Sonko kon la ñu yem bi ñu waxtaanee suñu biir ku nekk sottante xalaat ñu ne ah lii kat jar na am na loo xam ne war nañ ci mën a waxtaan ak askan wi moo tax ci ëllëg si boobu dimanche la woon ci ëllëg si lundi ñu def conférence de presse lii la demee bi ñu waxee affaire euh, euh, candidat yi am na koo xam ne sax dafa ne léegi comme Ousmane Sonko nekkul candidat est-ce que léegi ñun duñ ko defal ay schéma pour wax ko ko ma ne leen loolu du suñu cër ñun Ousmane Sonko mooy suñu candidat bu naree du ñun ñoo koy wax lan ngay kan ngay tànn bu naree tànn du ñun ñoo koy wax ne lii ak lii dañ nga ci jël compte nañ ko bàyyi mu tànn bu tànnee. kumu mu neex nga andi ci kumu mu neexul doo ci ànd. d'accord donc man après bu ma déggee wax ji daf ma jëlee kaw. j'ai pas compris fu mu jógee. Hmm. ak kan moo ci am intérêt pour mën a euh, euh, euh, mel noonu sur la place publique. d'accord ñun ñun ñoom ñëpp mun naa ne ay candidats Lacoste lañu. waaye Lacoste musta initier seen candidature Lacoste musta musta porter seen candidature bu ñuy dem jëli seen fiche de parrainage tagguñu Lacoste. bu ñu jëlee seen fiche de paie bu ñu déposé seen euh, candidature au conseil constitutionnel tagguñu LACOS donc lakkoos amul droit ne dafay tànn ci seen biir bu boobaa laso LACOS day def loo xam ne dafa jéggi ay prérogative am. d'accord léegi yow booba ba tey gisee woo ceeg Ousmane Sonko. non Ousmane Sonko xam nga euh, yaa ji ñëw na fi Dakar ñu baaganteloo ko ay fan balaa muy mën a gis doomam. Hmm. mais gis na ko. c'est-à-dire mujj na ko gis. kañ la ko gis.

kenn ci ñun en tout cas man jombal jëmb naa ko sama bopp di woot Ousmane Sonko ne ko léegi comme nekkoo candidat wax ma lan la ñuy def parce que xam naa ne bu waxtu bi jotee moom euh, bëccëg bu mu jëlee décision bi man du ma fanaan sama ndig sama kër te te du ma wax du ma xam lan la lan la jël comme décision. kon ba léegi Ousmane Sonko waxagul ci mbirum candidat bi. ah en tout cas ñun déggaguñ ko. xam naa ne euh, Lacoste dina continuer bi jamono jooju boo ba Ousmane Sonko dinañu def leen lii. ku nekk ci ñun xool lan ngay def waaye man nag mun naa wax ci sama wàllu bopp xam naa ne ko Ousmane ko joxoñ man dinaa ci ànd ak moom xam nga lu tax. parce que déjà man bi ma demee seeti ko nee na ma moom bu gaa yi taxawee ne moom du bokk ba du bokk moom dafa jàpp ne projet bi moo ko féete kaw te kenn mënul tere projet bi dem c'est-à-dire que dina mës a am benn sendaa au moins bu mun a ànd ak Amadou Ba. même bu waxtaanee ak moom ba kooku nangu ne léegi moom mun na gàddu projet bi parce que loolu moo nekk moom Ousmane Sonko contrat bu mu am askanu Sénégal bu boobaa dina wax nit ñi ne kii de moo yore projet bi bëgg naa ngeen jàppale ko ndax mu dox n'est-ce comme wax na ma ko ma ànd ceeg moom donc ku mu joxoñ ne kii la naa xam ne kon projet boobu mu wax ne moo ko féete kaw moom moom la bëgg mu ñu doxal ko pour askanu Sénégal bu boobaa man dinaa ci ànd ak moom. d'accord léegi mu loolu yëpp weesoo fii ak Ousmane ko di wax ragaloo ne bu waxee benn candidat rek la mun a na ci lu ñu jàpp. budul ne du bàyyi ñett ñëpp ñu dem est-ce que ragaloo xëccoo am ci vraiment parce que ki jàll parrainage ba tey mu jege pale Nek place de l'indépendance xëy na euh, digganteem ak fale tuuti dox ci est ce que kooku buñ ko bëggee tegee ne yaakaaroon dana forcé dem te loolu itam du gën ci yéen mais jamono jii nii ñoom ñëpp dara obligé wu leen ñu ànd ak ñun bu dee ñoom dañoo bëgg a dégg seen bopp jëlu ñuy xaar Ousmane Sonko du la ñu war a xaar pour ñu xam ndax dañuy nekk candidat wala duñ nekk candidat jamono jii nii nii nii fu ñuy waxtaan ak wax ak mm. dara obligé wu pour ñu ak ñun bëgg ku ci bëgg a dëggal sa bopp ne da ngay dëggal sa candidature da dem da ngay dem élection présidentielle jarul ngay xaar Ousmane Sonko parce que ñoom ñëpp nee nañu bu Ousmane Sonko nekkee candidat dañuy retiré wu léegi Ousmane Sonko nekkul candidat kon lu ñuy xaar am déet wala Ousmane Sonko kon ba tey kon ba tey docteur Cheikh Tidiane Dièye ak Habib Sy Ousmane Sonko la ñuy déglu ba tey jii. waaw mais donc je suppose que moom la ñuy déglu léegi nag buñ toogee fii di ko déglu ba keroog mu jël décision mu gëndoo euh, Cheikh Habib ak ak Cheikh Tidiane Dièye am déet.

jamono bu la tànnul nga génn wax ak nit ñi ne waaye man dama yaakaar du man lay tànn mais comme tànnu ma damay dëggal sa bopp te ngaa dëggal sa bopp bi déjà comme ça nga may nit ñi nga nëppal nit ñi mm-hmm. boo toogee di ko xaar rek ñun dañoo jàpp ne bépp décision bu mu mënta jël yoon ci ànd. d'accord voilà. leer na kon jàpp nga ne bu Ousmane Sonko tànnee euh, Diomaye wala mu tànn Habib Sy wala mu tànn Cheikh Tidiane Dièye ñi ci des ñëpp dañuy retirer seen candidature désister euh, euh, daal di ànd ci kii Sonko tànn yow loolu nga yaakaar ne moo nar am. mun naa mun naa bañ a wax li ma yaakaar ne ma wax leen man bu ma nekkoon ci seen place. xam nga gore. Mhm. muy nit. man nee naa la bi may dem jëli fiche de parrainage Ousmane Sonko moo ma ne demal jëli fiche de parrainage ni man. te xam naa bu boobaa boobaa xam naa ne ñun ñi ñëpp ñu nekk tey ay candidat mhm. moo leen ne dem lañ jëli fiche de parrainage benn ñaareel bi am na ci koo xam ne moo ko jox ay député mu nekk candidat am na ci koo xam ne jàppale na ko pour mu mun a euh, am parrainage pour mu dem yóbbu au niveau du conseil constitutionnel donc mun naa wax ne ñoom seen candidature Ousmane Sonko moo ko tabax ak ci loxoom bu mu antu comprendre nga. waaw leer na. bu ma naree nekk candidat man dinaa ne Ousmane Sonko man de yaa ma ne woon ma wuti sama fiche de parrainage yaa ma ne yaa ma mayoon euh, parrainage yaa ma euh, yaa tax ma déposé fiche de sama candidature léegi nee nañu man sama candidature validé na sa candidature validéwul jàppoon naa ne yow boo nekkoon candidat man du ma nekk candidat yàlla def na tey jii man may candidat yow doo candidat jërëjëfati Ousmane Sonko léegi bàyyi ma man ma dem wuti xam nga wala lépp lu ma mën a def tànce ak moom parce que mënoo ko gis waaye mën nga yónnee ci moom te mën nga jot li mu la li mu la tontu mais nañu def loolu comme sax ñu mën a xam la ñuy def. mais bu ñu sof bu ñu bu ñu dugal nit ñi. lakos bu may jiite man. koo wax non no xaw ma yàlla xam na ne xaw ma boo ko xamoon man waa ji waa ji boppam lay interpellé. d' accord mais ba léegi xaw ma fan la wax ji jógee. d' accord de sorte que man daal vraiment tooñ lay bañ. léegi nag man Ousmane Sonko bu ma defal loolu bu dee man la bos bu joxoñee keneen ku dul man yàlla xam na ne bu doon Amadou Ba la sax ma topp ko. Hmm. ndax kóllëre bu dox sama diggante ak moom. dëgg la tu as le coowal euh, collectif des recalés Sonko président amoon na ci benn représentant mais euh, yéen dafa mel ni rocceeku ngeen à travers Ousmane Sonko bien sûr ca lettre ba bañ bindoon président Macky Sall ça veut dire que yéen waxum audience bi itam concerné ou leen beaucoup leen ci. Ousmane Sonko day li mu wax sénégalais leer na dafa j'ai jékki rek ñu ne ko lettre Bo xam ne moom tudd nañ ko ci mu ne kenn waru koo tudd ci lettre Bo xam ne buñ koy bind yëgu ko. biñ koy bind laaj ñu ko xalaatam jàpp na ni jamono jii ci processus électoral bi euh, Macky Sall amul lenn loo xam ne mun na ko ci mun na ko ci def jamono jii lépp mu ngi ci loxo conseil constitutionnel kon bu ko kenn boole ci lettre bi te xam nga ñun ñi ñoo doon wax ne séparation des pouvoirs munoo nekk ci jamono yi nga xam ne euh, Macky Sall li ko def réew mi matul sax ñaari weer nga ñëw dem ci moom naan da waxtaan ak moom ci lan ñëpp Sénégal sax dina pas besoin nga waxtaan ak Macky Sall te nga toog euh, muñ xaar keneen koo xam ne mooy wuutu Macky Sall nga xam ne juróomi atlam la am pour doxal Sénégal benn ñaareel bi mooy bu dee collectif des euh, candidats euh, spoliés la ñu wax man bi ma li ma yëg mooy quarante et un la ñu na maanaam ñeenti fukk ak benn la ñu ñu war a dem tey conseil seeti Macky Sall bi ma gisee seen lim bi fukk ak juróom la ci ñoo xam ne sax sénégalais yi ci ëpp xamuñu leen xamuñu leen nee nañu ay candidat lañu man mii nga xam ne maa ngi ci espace public bi liir naa ci am na ci juróom-benn wala juróom-ñaar yoo xam ne xaw ma leen donc ñooñu buñ naree seeti Macky tuuti nañu pour wax ni report dina am wala report du am li ma jàpp man li ma jàpp man Mamadou Lamine Diante Macky Sall xam na ne ñii bëggoon nañ nekk candidat ñu lajj mu utal mbërëm benn benn benn benn affichage. xam naa daf waxtaan ak ñoom ne leen kaay leen jàppale sama candidat bi. alliance lay waaw dafay wut ñoo xam ne dañuy jàpp dañuy jàppale candidat am ñu def affichage bi préparer seen hold bi boo xam ne mënul jàll xam nga seen hold up bi fan la commencé. Hmm. mooy bu ñu waxee sénégalais yi ne ñoom am nañu quatre millions de pare loolu ay kàcc kese la. ndaxte bu ñu amoon quatre millions de parrain duñu doon ragale dem dem euh, parrainage citoyen mais boo gisee demuñu parrainage citoyen c'est parce que en réalité amuñu lim doy. parce que bu ñu amee quatre millions de parrains ñu am modalité euh, boo xam ne ku ci pare parrainé kenn mënoo parrainé keneen. Hmm. moom mooy que ne euh, bu boobaa bu ñu waxee loolu sénégalais gëm ko moom mooy quatre millions d'électeurs la ñu am te loolu mënul nekk. Hmm. mënul nekk mbërëm bi bu demoon élection yàlla tere bu ñu naroon am deux tours parce que man dama jàpp ne ba un tour euh, premier tour rek lay lay yem. Hmm. bu ñu naroon dem deux tours. deuxième tour waa ji du qualifié deuxième donc tey jii ay maquillage lañ bëgg a def wutal ko ay ay nit ñoo xam ne ñu ne quinze candidats à l'élection présidentielle ñoom ñoo koy soutenir hmm. waaye quinze quinze quinze candidats duyu nee naa la man mi nekk dans l'espace public am na ci juróom benn wala juróom-ñaar yoo xam ne xaw ma leen <laughs> kon ñooñu ku ñu représenté à part seen bopp xam nga il faudrait que à un certain moment même boo nekkoon caaxaankat nga bàyyi caaxaan te lii li ñuy def nii